yaa xayra dayfin ataa bilbishri walmadadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi laa zilta dayfan kariman zaa'iran abadan mukarraman biqira taaati wassadadi auzu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñuy seetaan assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaara te di leen ndokkeel ci weeru tedd wi tey jii di fukki fan ak benn ci weeru koor e, ñu nekk fii ci jumaay Touba ci ndogu yi nga xam ne Muxaddamatul Xidma dañ koy organiser mu ànd ak ay waxtaani diine ngeen seetaan waxtaan wi léegi sëriñ Mbàkke loo doon ko def mu jëm ci wàllu an nikah bayna sarhi wala aq muy tom bu am solo e, ñu amoon ci nag ay gan yoo xam ne tey ñoom lañ jagleeloon bis bi muy waa kër Serigne Cheikh Omar Diop euh, Serigne Cheikh Mbacke Diop mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Omar Diop yabal fi délégation bu am solo boo xam ne euh, Serigne Cheikh Diop mu sëñ Assane mu sëñ Naar Assane moo ko jiite. ba noppi doon président fédération Cheikh Omar bi nekk ci biir Sénégal ak ci àddina bi yëpp ñu ànd ak mbooloo mu bëri ànd ak taawu xalifa bi ak euh, Serigne Moustapha Diop mu sëñ Modou Habib kenn ku nekk xam taxawaayam ci daayira Muxaddamatul Xidma ñi ngi leen di nuyu bu baax di nuyu njabootu Cheikh Omar gépp di nuyu ñi ngeen àndal euh, di nuyu euh, seen doom seen taalibe di jëwrin ci liggéey bi di sëriñ Assane Diop di coordonné diaspora bi di ku ci jàmbare di nuyu sëriñ Modou Habib euh, ak njabootam ñoom it di ñu jàmbare ci liggéey bi kon dañuy jox kàddu gi sëriñ Cheikh Diop moom mi nga xam ne moo jiite fédération daayira sëriñ omor yi nekk ci àddina bi yëpp ak ci biir senegal ci bis bi nga xam ne tey dañ koo jagleeloon njabootuk Cheikh Omar ngir ñu ñëw fekk si waxtaan wi doge si bi bi ñu noppee euh, ban gis islaam ci liggéey bi ak yan kàddu la ci rotal wasalaatu wasalaamu ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman sëriñ Abdoul Ahad Thierno jërëjëf ñu ngi am mbégteem di la siyaar di siyaare mbooleem waa jumaa ji waa muqaddamatul bépp ci turu jiital sëñ bu so teew nañ fi tey ci ndigal sëriñ Cheikh Mbacke Diop ànd ak sëriñ Assane mais nga xam ne mooy ab taawam mu coordonné nag fédération bi nga xam ne ñooy ay tànkam sëñ Aliou Diop nekk na nekk coordonnateur général sëñ Baynaar nekk trésor général sëñ Cheikh Gueye di doomi sëñ Makhtar sëñ Moustapha mi moom miin ngeen ko sëñ Xaarim Thiam mi bokk ci jëwriñ yi nag France ak sëñ Makhtar ak sëñ Cheikh Diagne mi ñëw fi teewal fii sëriñ bi ak jëmi njabootu sëñ Mor gépp sëriñ bi di am mbégte bu baax a baax ci liggéey bi ak gisin bi ak doxalin bi ndaxte yéen ñu mat a ñaanal ngeen euh, sëriñ bi nag gannaaw ba mu sante yàlla ak sëñ Tuubaa ak euh, seenu doxalin ci ak njabootam ndax ku ne xam na ne yàgg na noo dégg ci xista ñu ne bokk na ci ñi sëñ Tuubaa mujjee waxal ci jumaay tubaa muy naa Omar kon ak njabootam bu leen xërtalee ñu jëm si ci liggéey boobu di di leen ci roy di ci jàppale eh, liggéey bi kon loolu ak sant yàlla ku mel ne Baye di jóob yaa doon leeram ku ne xam ne taxawaay bi mu fi nekk woon ci ndigal sëriñ bi Baye Modou Habib yàlla ko fi yàlla yàggal lool sëriñ Moustapha mi ak sëñ Mbuy ak Assane mi xam ne gannaaw yàlla suñu tayawaay tey moom ci moom la bawoo ñu di ko ziar te di ko ñaanal yooyu yëpp di ay ndigal yoo xam ne mi ngi bàyyi ko ci sëriñ bi dañuy wax ne eh, xuddaam bari na boo demee ci wàllu àdduna ministère boo demee am na xuddaam waaye nag ña nekk cappale ñoo gën a jege président kon yéen ñi nga xam ne yéen nekk fii di saytu liggéey sëñ Tuubaa bi yéen ñëpp leen ameel cant ngërëm ak ay ñaan ñu ngi ñaan suñu borom yàlla barkeel liggéey bi ci daraja yonte bi sallallahu alayhi wa sallam suñu xol seet na bu baax baax ci teew gi fi teew ànd ak yéen jataay bi rawatina thème bu am solo bi nga xam ne moom ngeen tànn nga xam ne Serigne Omar ci ak ñawam bàyyi woon na xel thème bi ba tax tomb yam laajoon Serigne Omar bokkoon na ci ahkaamu zawja wa zawjaat bokkoon na ci yooyu ci miftaalu xuyub bi kon am nañ mbégte bu baax a baax di am cantu ñaanal ki doon def waxtaan wi muy sëñ Mbacke Lo di suñu wëlëre ñu ngi am mbégte di la sant ci taxawaay ndax wëlëre gi nga am a kër gi gis nañ ko sëñ bi sant na la gërëm na la ñu ngi delloo nag suñu kàddu di ko di ci ñaanal Serigne mu Mountakha Mbacke mu yàgg fi ak njabootu sëñ Touba gi. ginnaaw bi noo gisee ndogu yi bi nga waa fa tabarakallah ndogu yi moom am nañ ci mbégte bu baax a baax ndax Euh, ci tënk rek li suñ borom wax ci ku suural li yonent saa sa wax ci ku suural ab julit gis nan sell gi gis nan matuwaay yi gis nan yitte ji ndaxte ñam nu mën a mel mel mel kanam a koy joxe fa tabarakallah bi nu jógee ci jataay bi ni ngeen nu dalale ak ni ngeen nu accueillir suñ xol set na ci bu baax baax yàlla ngeen ko yàgg a taxawu ci daraja sëñ Tuubaa xam naa lu mu néew néew sëñ bi yónni woon nañu lu mu néew new rek ñu def ci sunu ñaq ndax ànd ak yéen liggéey bi boole kook ay ñaanam yàlla ngeen ko yàgg def te nu yàgg fa tabaarakallaahu jërëjëf xam naa ne ñaq woo moom lu ciy dolliku la ci jëf yi ngeen di jëf ndax kenn ku nekk xam na ne daayira Muxaddamatul Xidma bu tisaaroo ci Europe ak Afrique njabootuk Cheikh Omar bokk nañ ci ponk yi ko gën a tisaare loolu nag su ma koy wax wa maa saahinnaa illaa bimaa alimnaa ndax dama cee xam dara yàlla dafa dogal euh, mboolem banqaas yi ñu samp ci Europe man ma ànd ak sëñ Mamor ñu taxawal ko euh, ak sëñ Assane bi nga xam ne mooy coordonné Espagne léegi liggéeyu Europe bépp sax dëkk yi nga xam ne damay dañuy wëreelu di ko fa samp sax bu noppee moom la ñuy jokkoo ak moom mu leen di coordonné te ñooñu yaakaar naa ne euh, dama ne la lii luy feeñal yéene la waaye la fay jógee ci ay jëf euh, man sanna sunnatan hasanatan hasanatan fa lahu ajru man man xamila wa xamila bihi maanaam képp ku def lu baax maanaam ku sos lu baax danga nga ciy am yool am yoolu lu toll ne keneen ka ko gis ba roy ko te loolu bu ma koy wax dafay law ba ci suñu am di mi nga tudd léegi sëñ Modou Habib ndax seen jëf ci jumaa ji jiitu na daayira Muxaddamatul Xidma euh, kër sëñ Omar nag ak jumaa ji ni nga ko waxee ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci jumaa ji ci ay askan boole woon leen bu yàgg wëlbati ko boole waan leen ci liggéeyub sëriñ Touba du saayir ndax moom ak sëriñ Mbàkke Buso sëriñ tubaa boole na leen jataay ngir boole leen ngir ñu taxaw ci liggéeyu jumaa ji sëriñ bu so jubal xibla jumaa ji natt ko ba noppi ñu nit ñu bokk ci njabootu sëriñ bu soobee ak ñi bokk ci njabootu euh, taalibe yi fi nekk euh, di sàmm worma yi ak barab bi tey jii li nga xam ne mooy lawal banqaas yi njabootu Cheikh Omar liggéey ci liggéey bu am solo loolu dafay wane ne euh, Serigne Touba mbiram du saayir kon loolu ñun gis nañ ko bu baax a baax ñi ngi ciy sant bu baax di ci gërëm loolu nag ndimbalul yàlla la Serigne Touba moo tànn ay ay gaayam kenn ku nekk mu niital la kenn ku nekk xam ne loo gàtt gàtt xel gis ne taalibe yi sëriñ Omar ak ak njabootam sunu borom dimbale na leen ñu amuk taalibe guñ teg ci xel ba fuñ toll it lañuy ñuy liggéeyal sëriñ Touba boo demee da nga gis ne ñoo man ba pare muy ñu yar ñu ñu jàngal tamit loolu it ndimbalul yàlla la euh, ndimbalul sunu borom la. nit mën naa jëf te jëfam du dem fam bëgg waaye dafa mel ne yéen fas ngeen yéene seen alal ji ngeen di am muy dem ci gënal sëriñ bi te loolu du ci du ci jumaa ji rek faneen fu bari ak daayira yi doxal liggéeyub Serigne Touba bi ci bitti gis nañ ne seen i taxawaay nam ci amee Serigne Khadim Thiam mi bokk ci jëwrin yi Muxaddamatul Xidma nekk Las Palmas bokk ci seen njaboot euh, seere la ci. sëriñ Assane moom dama ko jëlale ndax euh, lépp lu defit bu koy def wax dëgg yàlla jëmmi sëñ Omar moo tax ndax yéene ko toqe ci ak taalibe te taxawaay bu am solo nag lay taxaw ci liggéey bi boo xam ne amul guddi amul bëccëg saa su nekk te yéen la fa nekkal. sëriñ Naar asan la fa nekkal sëñ Assane la fa nekkal suñu Cheikh mbakke Diop mii xalifa sëñ euh, Omar la fa nekkal kon loolu ñu ngi ciy sant bu baax ci turu sëriñ bu Bousso di sant mboolem fu njabootu sëriñ Omar nekk ci àddina bi di di ñu seetaan wala mu di ñu dégg euh, ci jëf ji ngeen indi tey ak jëf yi ko jiitu ak taxaw bi ngeen di taxaw ngir lawal bànqaasi daayira bi ci bitti te loolu ndam la loo xam ne da ngeen ci yéene yiwu nit ñi rek ndax fii kat euh, ku fi sa jëf ñëw war ngaa sant yàlla ndax euh, am fi jëf-jëf dugg yombut ndax dafa bokk ci barab yi nga xam ne dafa nëbbutu te jëf ji sekki bëri tiyaaba kon nag ku yàlla niital nga fiy jëf rek am nga tawféex kon yàlla ñu yàlla yàgga niital bi barakati xaadim rasul ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu